jërëjëf jëf mbokku internet yu bii pro média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu am mbégte ak kontaante dellu siwaat ak yéen mbokk yi bu ngeen gisee fi ñu taxaw ngeen gis décor bi ci sunu ginnaaw ak li ñu wër ngeen xam ne événement bi mi ngi ñëw ban événement tabaski la mbokk yi tabaski nag bu ñëwee ah, xeetu baax baax yi dina génn wàllu sañse yi surtout suñu mbokk jigéen yi suñu sœur suñu yaay yi mbokk yi loolu moo tax loolu lépp fenn doyuñu ci lu dul fii ci parcelle global textile ah PDG Assane Fall borom global textile mbokk yi nekk parcelle route de taxaloo ak Senelec bi ah ci wetu fi nga xam ne mooy sapeur bi rek boo ko rombee ma joxaat la beneen indice terminus 26 euh, bi tamit foofu taxaw boo laajtee global textile mbokk yi ñu wan la ko Assane Fall PDG. mbokk yi looloo tax ñu ñëw fii ci parcelle ah, seet si leen bëgg leen a war nag ndax li leen wax événement bi bu ñëwee ñun fenn doyu ñu ji lu dul global textile ñu wan leen tissé yi am na ay jasineer ah, brodé pirxe ah, voile coton voile suisse voile brode mbokk yi lu nit di soxla boo ñëwee global textile da nga koy am moo tax ñu ñëw mais damay woo sama sama sama sama jigéen bi mu mu découratil ma yi nga xam ne ñoo am global textile surtout ci wàllu tàngaay wi ci loo nekk sama rakk ji. waaw maa ngi sant yàlla bu wér. yaa ngi ci jàmm. di leen nuyu di leen dalal. global textile nga sol nii. waa gis nga moom laa sol. seen tiset yi dafa rafet. adresse bu baax bi moo ngi nii global textile. fan ngeen nekk. ñoo ngi Parcelles Assainies unité 12. Mhm. jàkkaarloog euh, Sénélec bi. Mhm. boo ñëwee fii rek boo nee global textile laa bëgg a dem rek. Mhm. ñu indi la ba si place bi. déjà tur bi dafa wane boppam global textile. kon til yeeg brode yeeg voile yeeg yëpp. lépp loo bëgg rek loo xalaat ci wàllum tissu rek. mu mhm. ngi ci kër gi. waaw jigéen ñi lay seetaan loo leen di wax ak lan moo fi am. ah xanaa di leen wax ne rek adresse bi fii la. waaw ku bëgg sañse bëgg def lu raar lu fashion yaa ma gën a xam. Mhm. sañse ba mu rafet rek ba boo génnee waa koñ bi. ñëpp kontaan. Mhm. fii rek ngay ñëw global textile. waaw déjà ñi ngi ci tàngaay. kon lu ñuy gën a dem tabaski bi ñëw muy gën a tàng lan ngeen préparel client yi ci tàngaay bi. gis nga loolu moo tax sax ñu wàccee dentelle yi. gis nga ba pare nag ak ay prix yu abordable macha allah. Mhm. xam nga lii dafa neex si tàngoor. ba pare te dafa rafet. gis nga. lii boo ko sàjjee xam nga dëkk bi yëngu. boo ko sàjjee <laughs> gis nga xale yi kontaan. Uh-huh. ñëpp Beg yaa gën a xam macha allah. Mhm. am nañ fi xeetu tissu boo bëgg daal am nañ ko. Mhm. tàngoor bi. am nañ fi ay voile ay tissu Fatima. nga xam ne dafa nooy neex si tàngoor bi. Euh, euh, Fatima tissu la. Fatima tissu la gis nga. tour bi global rek moo tur bi ni mu neexee tissu baa ko dàq. Ah maa la wax loolu. loolu de fii rek la am. fii rek la am global textile. Oh. fii rek la am ma ne la gis nga mi ngi noonu. li ma jaaxal moom dafa respecté clients yi ak clientes yi ba bu événement di ñëw day dem bitim réew. jëli arrivage bu bees indil leen. gis nga mu ngi noonu bëgg rek ñëpp kontaan ñëpp gis seen bopp ci Global Textile. waaw moom dafa baax macha allah moo tax dafa bëgg daal. ñëpp di bëgg daal. mais man tàngaay ñi la waaw ak góor ñi tamit fàttewu ñu leen de. Ah, waaw gis naa fi jasneer yoo xam ne. dama yaakaar ne da ngeen cee def clim ndax boo ko solee ni muy seddee. Ah, ci tàngaay bi daf ma jaaxal. mu ngi noon nag bañ kenn mer rek nee la fii moom ku fi ñëw. mi ngi noon ay jasneer yoo xam ne coton cent pour cent la. Mhm. da nga koy sol doo ñakk mhm. doo def dara affaire bi day neex sa yaram bi dangay naan sax yow man xanaa maylus laa sol. déggal xam nga loolu fii rek la am <laughs> ay foo fii rek la affaire bi waaw ku bëgg sañse bëgg a jongoma daal doxantu ndànk ba fii si global textile boo ñëwee ñu defante yow lu baax waaw kontaan naa merci ñoo la gën a kontaan <laughs> macha allah moom après dama koy dama waaw nga jàll si biir ñu wan la ñu fi nekk am nañ tissu sañse am nañ loo bëgg daal mi ngi si kër gi waagaan kon ñu dem ci biir mbokk yi ni ma leen ko waxee fii mooy euh, global textile. mbokk yi ni leen ko waxee gis ngeen sànq euh, bi ñu leen di présenté ci bunt bi ñu ngi global textile hmm? PDG Assane Fall euh, ni ma ko waxee sànq nag bu ngeen gisee période bii ñu ñëw fi xam nañ ne ñu ngi jëm ci période événement tabaski sama suñu mbokk jigéen ñi suñu sœurs yi ah, suñu grand frères yi. dañuy bëgg ngeen am lu baax moo tax ñun dañuy dem fi nga xam ne xam nañ ne foofu ku fa dem am lu baax. gisuñu fenn fi mu toll nii ah fuy jaay lu baax man naa ko wax fu dul global textile mbokk yi dama leen di conseil bu leen dem fenn ñëw leen fii gis ngeen euh, yin leen fi wan macha allah mi ngi jàll ci écran bi jasneer yi brodé yi til yi bu ñu duggee ci biir waxtaan yi dana nu gën a wax sax yan moo fi am euh, mais PDG ziar naa la. ñu ngi lay ziar mbay ah di nuyu mbokk internet yi ah, di nuyu képp ki nga xam ne mi ngi leen di siiwul di am kontaan seen kër ngeen ñëw fii seen kër mu doon suñu fier doon suñu mbégte waaw mais bii gars mbaa mbaa duñ wax mbaa bii jeexul. bii moom warul jeex. <laughs> bii jeex bii des na fi. Ah. bii des di ah, ah, bii des na fi. waaw moom des na fi waaw bii des na fi ni ñu leen ko waxee PDG Assane Fall euh, PDG bu Global mi ngi fii ci Rue de Dior en face euh, sapeur bi mi ngi taqaloo ak Senelec bi. bu ngeen laajtee ñu ñu wax leen ko fii yëpp Global Textile foo ko laajtee parce que macha allah gis ngeen ko nit ñi ni def moom la ñu taamu ñu ñëw ñëw période événement. ni nga koy defee ni ma ko waxee ba événement di jub si da ngay dem bitim réew xool qualité ndax xam nga sa ay clients yi ñu bëgg nga indil leen ko arrivage bu bees bi ñëw na lan nga leen di wax. waaw moom xanaa di gën a dolli sant yàlla global textile moom day signifier global yemuñ si deux deux deux motifs de kese la ñuy jaay dañuy jaay global maanaam li fi nekk ci article ëpp na 300 pièces. 300 pièces de différence clients yi ñun chaque jour mbégte clients yi la ñuy topp. bu client yi ne lii lañ bëgg ren wala lii lañ bëgg comme andi lañ leen ren découpage yoo xam ne. da nga ko doon jënd mu cher dañ leen andi découpage ay noonu la ñuy amee cinquante deux leen bordé andi leen bordé lafaya. Mhm. andi leen pirxa andi leen til andi leen jasinière andi leen machine ris comme li ma sol nii koo gis danaa jasin mais machine ah lii du jardinière. déedéet moom mbasin riche leen qualité mbasin riche boo xam ne yow boo ñëwee ci kër gi boo ñëwee li ngay njëkk a gis mooy da nga gis sa bopp. Mhm. andi ah, leen couleur yi rafet couleur yoo xam ne yow boo ñëwee di nga si gis sa bopp. Mhm. tissu góor filaafil yaa mhm. borokaar surtout borokaar borokaar ren gaa yi jël nañ ko. bordel la fa yaa gaa jël nañ ko. yëpp mu ci biir kër gi waaw. Euh, ñu gis ne euh, place yi bari na ni ma ko waxee. mais lan moo tax gaa yi taamu global textile. ah parce que liggéey bu seet la rek parce que ay xale xale yi ñuy liggéey te lu ñuy liggéey xam nañ ko jàng nañ ko maîtrise nañ ko te mën nañ ko waaw ñun liggéey boo xam ne dañuy liggéey vingt quatre heures sur vingt quatre ñii dañuy vingt quatre heures sur guddi gi ñu ngi profité waxtaan ak yéen clients yi nga xam ne ñu ngi nekk ñi ñu ngi nekk diaspora bi ñu ngi nekk si côté Saloum Bawol ah, quatorze pays Sénégal yëpp ñuy liggéey ak ñoom ci anam gu set ñoo xam ñu am si ñun confiance di ñu yónnee seen xaalis ñu ñuy livrer ak xel mu dal te loolu foo mu nga sant leen gërëm leen mhm. waaw. Euh, ñu gis tamit client dina fi ñëw bëgg dara nga orienté ko ba mu jënd loo xam ne mhm. euh, fi nga koy teg mooy gën sax la nekkoon ci xelam sa complicité ak client yi. waaw da ngay gis client boo xam ne day gis euh, si internet wala mu gis benn nit dugal dara. mu gis ñëw rek peut ne lii laa bëgg bu ñëwee man su ma xoolee. ci mhm. comportement ni mel ma ba preuve ne ko defal lii ak lii ak lii proposé ko su ma ko proposé da mu gis si boppam. Mm. te bu ko solee lu muy njëkk a def muy du ñu gërëm di sant di am kontaante. waaw loolu moom mi ngi si biir kër yi. jugee ci tissé yi mais ñu gis fi ay tissé taxangaay yoo xam ne yooyu foo ko commandé c'est parce que nooy na macha allah neex na. waaw tissu coton yi ñu mujjee andi. mooy tissu góor yi yooyu ñu ngi ko jëlee turki ku ne xam ne turki ñeme nañ xam nañ tissu. xam nañu qualité bëgg nañ lu baax moo tax ñu ngi ko jëlee turki mm. andil leen ko pour ñu clients yi nga xam ne bu ñu demee julli ba pare bëgg nañ lu ñu lakkee xar sol parce que am léegi solo amatul góor ak jigéen ñëppay solu loolu mu ci biir kër gi tey ñu ngi koy sant bu baax waaw di sant képp nga xam ne moo doon client muy góor muy jigéen pamer ndaw ñu ngi lay sant bu baax yéen client global textile yi. ci ci ci brodé yi parce que man gis naa fi xeetu brode yoo xam ne. bi ma ñëwee fii laa ko laa ko door a gis euh, boo gisee ni yii nii façon couleur bu ne macha allah am na fi sama waa ji boo mënee sax man nga maa jot li benn waaw man nga ma jox brodé lafeyaa yi bu ko defee clients yi gën a gën a gën a xoolaat li may wax parce que man bu may wax dama leen di bëgg di jox preuve ah boo gisee ñu taamu global textile ñëw fi voilà da nga fiy gis tissé yoo xam ne vraiment. sincèrement parler fii lañu koy gis bu dëgg rek euh, <laughs> dee dëgg waaw fi ñuy dem bari na mais li ñuy gis fii voilà yii ñooy yan. ah bon lii lii dama gis client dañoo jël rent lafaya jël lafaya ma si lafaya bi jël motifu liggéey ko si pirxe jël motif fi am ma liggéey ko si bordé pirxe nga xam ne yow di nga si mën a gis sa bopp ci li ngay li ngay li ngay jënd waaw li nga gis moo nekk ni am na yeneen motif yi am na yeneen motif ni mu abordable prix bi dañuy gis piri xa day jar ay quatre cent mille ay trois cent mille mais Assane da nga fiy ñëw dugaale cent mille sax génn sañse ab ah yi xam man ndimbal njaboot la parce que dañuy sóoraale chaque jour lu mel ne événement tabaski day métti si góor day métti si jigéen ah sañse war a tabaski yàlla moo ko favoriser noonu suñ borom lu mu teral rek bu doon buur tabaski suñ borom moo ko def noonu nga xam ne nit ñi dañuy jóge fu ne di ñëw léegi nag mm-hmm. dañuy mun a bàyyi xel yenn clients yi nga xam ne ñoom loo bëgg waaw day lii yii maa ngi ko liggéey si lafayaa boo xam ne lafayaa yu jar deux cent quarante mille. ma liggéey ko si prix boo di ko jaay vingt cinq mille. moom lañ koy wax liggéey te aussi tamit même andi nañu dentelle am mhm. nañ dentelle yoo xam ne. Mhm. yu nekk classe dentelle yoo xam ne doo ko gis yi bu mu leen raw. vingt cinq mille moom man maa ngi doon wax boo fi dugaalee cent mille. waaw ah, ah loolu kay moo ma jaaxal man. lépp ñu doon ko ñu profil ko daamine ko ne client bu ma dentelle na dentelle yoo xam ne aussi wàññi nañ ko. ko solee da am pire non seulement mais da koy am Lafeya ñaar yooyu Lafeya bi xam ne dañ ko liggéey qualité asli bi mais dama ko liggéey asli ba pare ñu dolli liggéey bi nga xam ne yow client bu ñëwee dina si mën a gis boppam waaw di ko mën a sol di xam ne jënd nga li nga xam ne mooy qualité ba pare mooy cher na waaw loolu moom ayca mi ngi noonu mbokk yi ah euh, global textile ni leen ko waxee mi ngi ci route de Dior bi ah en face euh, sapeur bi dendee ak Senelec bi mbokk yi nag fii bu ngeen fi ñëwee da ngeen xam ne li leen wan ci internet bi non bu ngeen fi ñëwee da ngeen ko gis ndax ñun bëggunu di di di di wane loo xam ne ah, tooñu ma kenn nag waaye ku ñëw sa place doo ko fa fekk. ah dëgg la yoom ba pare aussi am nañu bagage yi ñu am bagage moom day raar boo yéexee leneen nga fi fekkaat lu bokkut ak lii. waaw mbay dañoo wàññi ren damaa wàññi. lu mel ni lu mel ni dentelle bi. dentelle waaw bi ñu ngi ko doon jaay 5000. ok damay bañ na ñu jaawale ko ak dentelle PC dentelle Dubaay bi la ñu ngi ko doon jaayee mooy dentelle jipir bi waaw ñu ngi ko doon jaayee cinq mille léegi am na couleur yëpp di ngeen ko gis suñu image ñu ngi koy jaayee mètre deux mille cinq cent lañ koy jaayee waaw mètre deux mille lañ koy jaayee am na cristal bi am na ñoo xam bëgguñ kii bi mu doon unique bi am na unique bi tamit mètre 2500 2500 lañ koy jaayee. non man ci laay jënd ren. Ah, bu ma kenn sonal. <laughs> c'est parce que da ngay mètre 2500 bu bu bu jar 200000. 200000 mu ngoog merci. moom dañ ko liggéey ñu andi ko di ko jaay mètre 2500 am na couleur yëpp. waaw te mu nekk dantel coton dantel ay motifs raar motifs yoo xam ne fii nga koy gis si biir kër gi. gis nga nga koy gis si biir kër gi ah, waaw fii nga koy gis si biir ah. kër gi moom boo ñëwee moom mhm. am nañ lépp luy produit tissu boo boo ñëwee biir global teg si di nga fi gis sa am naa yaakaar di nga si gis sa bopp waaw fàttewuñ nga ne leen màkk yi alma fall kii borde cotonnaat yi indi indi brodé yi c'est parce que bu ab ne après tabaski rek dix jours wala une semaine après tabaski ah suñu yaay yi wala suñu papa yi demoon màkk ñëw te bu boobaa dañuy bëgg def lu weex. te seerul ñu ngi koy jaayee mètre 4000. 4000 waaw dañuy sóoraale ñuy ñëw pour nga ne la màkk yeeg genre mel noonu. am na balaa loolu dina garaaw de yow ay mètre 10 mille ngay jaayee ay mètre 4000. mooy yoon dañuy nimal njaboot rek jamono neexul mbay. ñu ñoo ñëkk a wàccee jazin kii masin riis. waaw 10 à 13000 te incha allah dina ñëw. 10 à 10 ñoo ko njëkk a boo duggee page global text bi. mais loolu Assane bu wàccee du jeex loolu mënul doy. moo taxawul taxawul moo wax dëgg fa taxawul. loolu moom moom moom taxawul ah. taxawul moom. Euh, te li ma jaaxal euh, beneen commande bi war a ñëw demee ou après demee yooyu dina ci ñëw. waaw nii nii nii gisoo sànq dañu doon wàccee mbasin yi ñoo jeexoon. moom la ñu doon wàccee xale di ko rangé waat. waaw moom de toute façon daal képp koo xam ne bëgg nga lu baax. bëgg nga tissu bu baax bëgg nga qualité. ñëw biir global taxi génne ma brocar yi am na brocar rafet tamit. brocar mooy lan. brocar yi mu ngi si biir. tey sama waa ji sama waa ji de ndeke ndeke ndeke caaxaanut lii li tax xale yi ne euh, ñun global la ñuy topp ah am na lu tax parce que xale yi dañoo bëgg lu baax nag xam sañse xam qualité ok lii mooy brocar lii boog bi ak bii sax benn mën nañu ànd. di ko booleeg lu ne brocar tam am na ay couleur différence xam naa après di ngeen ko gis si suñu image waaw di ngeen ko gis ci suñu image yi. mooy kàddu yi. waaye xoolal ma lii yow. waaw. dem yàq ku bëgg sa alaaji bëgg ku ne ba boo nga daw si ñëw. loolu am na loolu am na ah. loolu am na loolu am na. mais mais du ñu tëj. te demuñu ci jasneer yi. parce que li tax ma ñëw mujj jasneer yi jasneer kenn ku ne xam ne ne période tàngaay day tàng. mais dañu gis yow nga am ci qualité coton boo xam ne sànq maa ngi tooñ sama sama jigéen bi naan ko xanaa da ngeen ci def kilim ndax jasinaire da nga koy sole di tàng te boo ko solee day sedd man loolu moom ah bon jasinaire waaw jasinaire ñoom ñoo ñu koy tàmm pour ñu andil leen ko mhm. andil nañ leen qualité jasinaire andil nañ leen tamit beneen qualité mhm. Mbassin Riche waxoon bañ na ba dama fals sax tur bi. waaw def ko bu mel ni Jesner. ni Jesner am am na benn piisu Mbassin Riche ma woon ko. waaw moo leen qualité Mbassin Riche bi nga xam ne dama jëlee sa Jesner mais qualité Mbassin rek. Mhm. boo gisee da nga naan kii ndax Jesner la. gën neex ci liggéey bi. sérieux bi nga ci jiital. c'est parce que am na ñoo xam ne dañ lay jaay basin Riche qualité Jesner. loolu man gis naa ko. nit jënd na Mbassin ñëw wan ma ko. ma ne ko lii basin Riche la. mu ne ma prix Jesner lañ ko jaayee. te nit bu bëgg ñëw gis rafet rek man nga ko def mais yow da nga ko koy teexantal. ah parce que fii man damay chaque jour client dama lay proposer li ngay bëgg. Ah, am na pièces yu ma andi andi pièces yi dama lay proposer yow li ngay soxla andi benn pièce yi ma yu bees yu ma andi dama li ngay soxla mooy soo am na fi mbasin risque bi jar mètre 3000 am na fi mbasin risque bi jar 5000 am na mbasin risque bi jar 2500. bii mooy jar bii nii non bii ñu ngi koy jaayee 5000 gisoo biir bi biti bi ñoo nduroo. gis nga te amee 62 la. biir bi biti moom moom dañ ko liggéey comme noblesse jasiñar lañ ko liggéeyee. 1 kii bu góor bi sama gars yi ku ciy def grand boubou doo ko yokk. da ngay da ngay tàllal rek <laughs> am am kii bi. téer yi xam nañ li may wax ñoom. loolu am na gis nga voilà. ndeysaan. oh. macha moom am na ay couleur différence na am na ay couleur yoo xam ne boo ñëwee si kër gi di ko fekk waaw boo ñëwee si kër gi di ko fekk mu ngi ci biir kër gi xam naa ne global lépp lu waay soxla. yaakaar naa boo ñu seet seet di ko fi su la neexee soo andee sa échantillon échantillon tissu. ne lii la bëgg. balaa soixante-douze heures ñu andil la ko waaw. macha allah mbokk yi euh, dama ciy def kot deuxième épisode bi ndax euh, bii mooy première bi fii ba Tabaski du ñu bàyyi ak global ndax xam nañ ne yu baax yi moo nekk fii euh, lan ngay tàggoo ak lan ngay wax clients yi. avant di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ah clients yi di jaajëfal mbokk internet yëpp képp nga xam ne ngi leen di suivre ah di sant bu baax di wan ne di woo samay clients. di woo samay clients yi nga xam ne parce que global dafa am clients yoo xam ay clients fiers lañ fidèles lañ parce que tout le temps image yow li ngay jaay ñoom ñoo lay jàppale si jaay bi yenn saa may yor sama téléphone gis client bi di publier di partager yenn saa doo ko envoyé mu capture ko di ko koy kon ñooñu maa ngi jaajëfal képp ki nga xam yaa ngi jàpp ci liggéey global textile di la sant di la gërëm dinaa la maa ngi gis liggéey bi maa ngi gis ndimbali maa ngi ñaan yi ñu ngi si waaw di ko di ko wax yow mi nga xam ne yaa ngi jàpp si liggéey bi di la jaajëfal di sant di gërëm mm-hmm. waaw. ayca mbokk yi bëgg nañu xam naa li taxoon ñu taamu global ñëw fi mbokk yi bu ngeen seetaanee émission bi. ah da ngeen xam ne jar na ko nag ndax euh, ñun li ñu wax rek qualité la ñuy topp qualité la ñuy xool te xam na ne fii qualité moo fi nekk euh, originalité moo fi nekk ah euh, ndax ni ma ko waxee du yem ci réew mi gaa am na yu fi nekk mais fonk ay client dina tax mu jël vol dem ba bitim réew. Turquie ah Dubaï fu nekk mu dem fa indil leen Chine Suisse ah ndax euh, brode yi xam ngeen ne foofu lay jóge yooyu yëpp mu def ko ngir bëgg lu leen neex mbokk yi kon nag dina ñëw wan leen ko ah ngeen ñëw partagé ko ak moom bu ngeen yeexee nag loolu moom dama leen koy wax bu ngeen yeexee di ngeen ñëw di laajte ana li ma gisoon ci internet bi ñu ne leen jeex na boo yóbboo ngeen gaaw di ngeen gis numéro bi ci ecran bi mbokk yi ngeen ngeen ngeen ngeen woote xanaa nu sant sang bi rek. Baye Karim. waaw di nuyu sa moo doon di nuyu avant sama waajur. Cheikh Mohamed Fall Mori. Mhm. di ko ñaan borom yokk fanam. Mhm. yokk wéram ah. Mhm. di gërëm Cheikh Abdoul Karim Mbacke. mu doon sama papa. doon sama sëriñ. doon sama xarit doon sama séddoo. waaw mu nekk koo xam ne ma lakkal ko lool. waaw su ma ñëwee mu am su ma ñëwee. jasneer yi muy sol. yaa ko koy yóbbul. waaw ñu koy yóbbul ay bagages pour muy ñaan parce que doomu sëñ Fall la. da sëñ Fall la defal lu ne kon buñ ko toppee rek war la di ko ñaan suñu borom yokk fanam oyofal yan bi loolu mbàkke di ko ñaanal bépp kilifa diine di ko ñaanal mboole ki nga xam Sénégal nag di ñaan jàmm sax fi di ñaan jàmm am fi te réew mi réewu jàmm la di saako képp ki nga xam ne yaa ngi doon kilifa di la ko sàkku nga ñaan lañu ko ci biir réew mi jàmm am fi jàmm sax bi xeweli saan baaw ñëpp gis seen bopp fii réew jàmm la. abay ah, fi nga tëjee am na solo ndax yii ñu teg ak euh, liñ ko waaj a jëmee bu ci yàlla àndee muy tabaski jàmm moo mën a tax ñu def ko. bu jàmm amul kenn du tal tabaski kenn du tal dara kon nanu ñaan jàmm d'abord mm. yàlla sotti ci réew mi jàmm moo xam pouvoir la moo xam opposition kenn ku nekk li ngay xeex réew mi moo tax waaye jiital ci jàmm rek ak sago ndax réew mi ñoo ko bokk. kontaan nañu mbokk yi deuxième épisode dinañ leen ko indil mais bii bu ngeen yeexee bala ñoo ñëw ci bee li ngeen fekk fii moom day jeex kontaan nañ ci yéen jërë ngeen jëf.